Tafatine contre Boignan 2, le choc des titans. Suivez cet événement exceptionnel au Sénégal et partout dans le monde grâce au pay-per-view. Rendez-vous sur la plateforme lambdiaspora.com sur pay-per-view event et cochez sur la rubrique live. Vous accéderez ainsi à deux propositions. Le ticket passe pour une personne à 9,99€ et le ticket passe pour deux personnes à 19,98€. Une fois que vous aurez fait votre choix, différents modes de paiement en ligne vous seront proposés, à savoir le paiement avec votre téléphone mobile avec l'application Africa Mobile Money, le paiement par carte avec l'application Pay by Card et le paiement par PayPal. Une fois que vous aurez choisi le mode de paiement qui vous convient de plus, remplissez les informations demandées pour valider votre inscription. Par exemple, Pour le paiement avec la carte bancaire, les informations demandées seront votre adresse email, les informations relatives à la carte bancaire en tant que telle et le nom figurant sur la carte bancaire et le pays concerné. Validez le tout en cliquant sur l'onglet Payer. Payer et le tour est joué. Bonne suite de programmes sur Léoto TV. Tafatine, Boignan 2, un événement de Léoto Production.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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonte bi sant sama ñaari waajur di leen sant bu baax ah, comme ni ma koy defee toujours internet yi international ak national ku ci nekk dama lay bégee bu baax a baax waaye comme ni ma koy defee li ko Modou Mané tudd ah champion mbër champion ku daan rek dañu daan dem toog waxtaan ak yow ci lépp lu soxal mbër bi soxal làmb ji dama toog ak beneen champion nga xam ne mooy borom double bi ah di Alioune Seye numéro nuyu ko bàyyi ko ma nuyu internet ñu waxtaan Alioune Seye maa ngi waaw soxna si maa lay fay. gannaaw baatu onze billahi mina seytaan rajim dañuy sant yàlla julli si yonent bi rek di sant sama ñaari waajur di sant sëriñ sama sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kaboro borom daaru salaam ak gaawaan mu yàgg fi loolu te wér ñaanal sëñ Mountakha Mbacke mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal kilifa diine yëpp suñu borom may leen tawfiq ak taysir di ñaaral suma supporters yi yàlla nañu am jàmm waaw leen di jaar bu baax a baax a baax képp koo xam ne yaa ngi safoo Alioune Seye maa lay jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm sutura tawfiq di ziar met ab di jaalikat mi nga xamante wax dëgg yàlla seeraatuma benn yoon Mamadou Matar Cissé Zil Dier Labine Biteye. Eh, waaw eh, eh. dama leen di nuyu. sant yi teel na de wala nga nuyu sant ba leen dama leen di nuyu. maa leen di ziar daal di leen bégee. li sax xaw ma ci ci la bokk dama lay sot fu mu nekk nii. waaw man damay bëgg heure bu may def interview nit ñi bu ñu xam rek mbër bi fi mu nekk instant bi mais fi mu jógee wala avant am ñu xam ko ci baax a baax Alioune Seye suñu bëggoon xam sa jaar jaaru làmp ndax nga ko dundee. waaw tout d'abord dañuy sant yàlla rek sama jaar-jaaru làmb neex na metti na mais loolu yëpp sant yàlla rek. ma mm-hmm. dëgg yàlla ci mbapat laa commencé dugg ci arène commencé affaire yi xam di neex di metti ba tey jii nii sant yàlla daal comme suñu borom bi ñëwee may wér. dañ koy sant yàlla rek. sa ban combat moo la gën a marqué. marke comme neex wala. bu la marqué bu la marqué ci neex ba pare balaa ñu ñëw ci loolu naqar ban combat bu la nga daan sa xol sedd ci. ba léegi doo faatu sama combat bi ma daan sama xool seeri si moom mooy sama premier grand combat. sama premier grand combat boobu grand combat dafa yombul woon. Mhm. xam nga may bëri ay spécial chaque ñu dig ma naa ma suba combat bi di ñëw di bëri grand combat di bëri grand yàlla dogal ma am grand combat. Mhm. combat moom bokk na ci xam nga combat ma gën a neex yàlla dogal ma bëri dóor mu daaru. da bëgg ay dóor mu daaru nag ku am lu la neex di am lu la naqari sama sama defet bu bëgg a betti maag booy bawal la. lu tax. waaw boobu yooyu bëree booy bawal boobu waruma waruma woon a bëree moom. Mm-hmm. maa ko maa ko sut fépp. Mm-hmm. làmb ja dafa nekk yëpp maa ko def. Mm-hmm. erreur bu ndaw jël ma quatre appuis jël làmb ji yem fa. looloo tax mu gën maa amee. léegi ci loolu ban jàng nga ci jëlee defet boobu. waaw defet boobu noonu moo ma ñaaxaat moo ma ci jógee ba léegi macha allah sunu borom bu may dimbali daal. waaw ndax xam nga rek. làmb ñaar ñoo koy def man dama doon jëw rek jàpp ne ku ma jàkkaar lool maa la mën xam bi ma toogee ak samay staff toogee ak samay nit ñu baax ñu ne ma làmb du benn nit ñoo koy def da ngay am looy indi sa morom am lu muy indi dangay ngay ñëw teey dal bu leeree rek nga dem bu dóor jotee nga dóor bu bëri jotee nga bëri ñu koy def yàlla dañ ci suturaal loolu dañ ciy sant yàlla mm-hmm. waaw ku xam làmb xam ne làmb dafa metti te am na peut-être yoo xam làmb taroon na tar boo xam te ne nii ku ci dëgëruloon da ngay bàyyi est-ce que mës nga toog am ay regret ci làmb bëgg a bàyyi. non non non non moom wax dëgg yàlla ba ma nekkee ci làmb léegi saa su saa su ma xëy rek am espoir mhm. li may def ko ci kàttanu yàlla sunu borom moom may dimbali ma xëyee mhm. li may ko def mën naa ko bu dee xeex mën naa ko bu dee bëre mën naa ko mhm. bu dee supporter am naa ko su ma tuusee mu neex. kon damay jàpp ne lépp lu ma amagul ci làmb rek dafa jotagu mais lépp lu ma war ci làmb man maa koy def espoir boobu laa am gëm-gëm boobu laa am ba tax na du ma mës a découragé ci làmb su ma doon découragé ci làmb bi ma voyagé ma toog fa def ni sama morom yi doon def mais gëm sama bopp moo tax ma ñëwaat xam ne li sama morom yi am dinaa ko ci am waaw incha allah ci loolu nañ comme li ko Sénégal ñëpp gisee mu am combat ak nga xam te ni du man jarul sax ci ciy ñëwaat day mel ni ay waxaat la problème am ci ba combat boobu yàqu Alioune Seye ñëwaat mais ñëwaat ak force lan la combat boobu lan la ci lan la lay yeewee. waaw tey boo gis dalay jàng jàngal ëllëg xam nga tey boo ñëwee ci làmb préparé lépp ñëw ba ci làmb xam mu yàqu ci ay yoo xamante ni ay détails. Mm-hmm. loolu du sunu maanaam du sunu du lu doo nekk loolu loo xam ne moom lañ sàkku. Mm-hmm. donc ku préparé combat ay 4 mois 5 mois ñëw ba ci jour ba. moom ay kërëb kërëb mm-hmm. loolu nekkul loo xamante ne day neex mbër mi mm-hmm. mais jaam lu muy bëgg ak yàlla lu muy dogal moom day ute mm-hmm. jour boobu loolu la suñu borom namoon biñ ci jógee tamit xam nañ ne erreur la woon ñu xam nga defaruwaat ñëwaat suñu borom di suturaal rek téere dañ ci leçon bu baax a baax a baax a baax waaw ñu ñëw ki nga xam mooy suñu papa Gaston Mbengue daal lay jox du ma ne sax ñaari avance waaye jël nga ci moom ñaari combat sa relation ak père Gaston la waaw sama relation père Gaston comme relation yeneen yi mu nekk suñu papa wax dëgg yàlla di doxal làmb bi mu ñëwee moom xam nga moom xam nga moom day créé boo xoolee presque ñu fi ñu fi gëj a bëri rek la indi man presque toog naa deux deux années balance bëriwuma xam nga aw ma adversaire Issa Pouye toog na xaw ma ñaata at bëriwul huit ans boo xoolee jos bi tamit toog na ay ñaata at ay cent ans ak xam nga ay ay forza toog nañ ay ñaata at ay ay pagala ñoo ñëpp mu indiwaat leen kon dañ koy jaajëfal bu baax di ko ñaan suñu borom defal ko tawfiq ak taysiir rek mhm. wax dëgg yàlla relation papa ak doom la mhm. relation kuy kuy jaay kuy jënd la waaw ci noonu nag ba nga ñëwaatee ñu jox la ki nga xam ne mooy Issa Pouye Issa Pouye toog huit ans bëriwul la moo war nga jël risque du jël jël jël Issa Pouye boobu waaw làmb làmb làmb lépp risque la làmb moom lépp la wax dëgg yàlla ku bëgg lu nooy wala nga bañ a jël risque boobu bu la mën nga bu la nga dem xama dem jéewi mm-hmm. dem xama dem jaayi café ay waay saay kañ nga ñuy dimbali mm-hmm. <laughs> mu ne la garaaw ak ñëw deex quoi yaa may dégg mm-hmm. ku bëgg lu yóbbu yow nga dem toog yi wala nga xool leneen loo def làmb lépp risque la toog na lu yàgg bëriwul ak lu yàgg bëriwul loolu yëpp moom laa jëmale man moom man maa ngi ci li ma war a nekk rek saa yi su ma amee combat damay jàpp ne sama morom laay bëri wala koo xam ne sax man maa ko mag mhm. la demee nga ñëw indi doon mu daanu yaa ngi dégg ñëpp ne non kii màgget la woon dugg na fii génn fële ñu jox ko Zos le showman ki nga xam ne moo jommal xale yëpp lam def booy ñaa duñ ko fàtte ak yeneen mbër yeneen mbër yeneen mbër jommal ñëpp ba kuñ ko averse bi ñu ko jox rek dañuy naan Zos moo baax ci xale yi nga jël ko ñu gis na ngeen bëree keroog nan nga ko waajalee combat boobu. waaw ni ñu ko waajalee comme ni ñu doon waajalee leen combat rek <laughs> wax na dëgg yàlla maa ngi koy maa ngi koy nuyu au passage Zos jantal grand la noo parale wax dëgg yàlla ku baax la. wax dëgg yàlla kuy neexal làmb la ku bokk ci làmb la def na ay jaloore ci làmb loolu moom xam ma wax sa baax waaye du wàññi sa baax dara. Mhm. dañ koy jaajëfal ba pare di ko masawu tamit. Mhm. di ko masawu bu baax a baax a baax di ko ñaanal suñu borom may ko wér bu baax. Mhm. may ko xolu muñ tamit ndax xam nga bi mu nekk nii metti na mais natt moom jaam lay dal lu metti jaam lay dal na ko sante yàlla te xam ne noonu la war a demee mu demee noonu mm-hmm. dëgg yàlla jël naa ko préparé ko comme yi ma doon préparé yeneen combat yi rek mm-hmm. yàlla defal ñu ci ndam dañ koy sant yàlla rek balaa ndame ñoo ñëw ci digg géew gi arbitre ne prix Zoss moom mii mag mu daw dem songi xale bi yow bi la Zoss bi songi songi seel sa xel xel lan lañ dëkk may waay yow xam nga man mooy wax rek bu ñu ñëw làmb la indi mm-hmm. xam naa ne sos moom guddi guddi bukki yooyu bay day ñëw day ñëw si même lu mu xeex xeex tamit sa tànk yi la jëm. Mm-hmm. moo tax bi mu defee écran ut si ma ma ko pas recul rek arrière may ko écart boobu nag moo tax bi muy bi ñëw ma gis ko. Mm-hmm. loolu la bi muy ñëw ma gis ko dóor ko ñaari épercule wala mm-hmm. làmb ji yem. làmb ji la yem épercule ñëw ñu ne loxo bi dafa simmeeku ñu naan bët bi moo toj ñi naan bët bi moo tuuru ñu naan bët bi moo teppeeku Alioune Seye du ma ne damaa fa for ci wéy bébé ñi ne Alioune Seye dafa yoroon béjjën ci loxo bi wala Alioune weewe mi ñoo teppi bëru Zoss bi ndax am na ñu ne Zoss recevoir sa kuu loolu am na wala amut yaa nekkoon te géew ga waaw loolu moom dama ne woon du ma ci wax sax ndax lu ne fàng moom kenn du ko jeex ndax Alioune moom wax dëgg yàlla manqué wul manqué koo xamante ni nag dem naa boo waree bëreeg Zoss naan maa ngi jël ay lu may des sama loxo ay lu may béjjën ak affaire yooyu loolu moom xam nga loolu wax ci yàqu la mhm. moom dara xewee nag ku ne libre nga analyser lu la neex du ma ci ne kii lii nga war a wax wala lii laa nga war a wax mhm. mais dafa si am loo xam ne xel moom moo koy mottali mhm. du ma fi nekk naa ay lii laa ko dóor ak lii laa ko dóor mhm. mais ay béyjën laa na loolu lañ gis moom mi doon bëre xam ne li ma ko dóor man mi doon bëre moom xam naa li ma ko dóor loo ko dóor na leer léegi loolu loo ko dóor li ma ko dóor loxo bi loxo bi li ma ko dóor mooy épercule laa ko dóor épercule yooyu daaj gaañ na ku ne c'est pas la première fois lañ ciy dóor épercule nit mu gaañu gaañu bu metti am na si yoo xam ne seen bët day suul loolu ñu ma kii am na si yoo xam ne seen R4 day am dañ leen dóor épercule ñu mais moom li ko dal loolu da ko war a dal rek mais ak am rek nañ def fair play te xam ne nit boom da koy nangul da koy nangul da nga koy nangul ay kiyam quoi ndax xam nga ay dafa am lu mu yor ay yooyu yooyu yooyu wax yu yàqu la mu dëgg yàlla xam nga mm-hmm. xaaruñu leen woon ci loolu daal Mm-hmm. ndax am na su loo xam ne xel nangu ko. Mm-hmm. ay bay jën ay ay we. Mm-hmm. soo xoolee we yi nit boobu bu dal rek dal fu mu war a dal mu dagg noonu la ko yàlla tudde di ma ko def noonu mënoon ma koo def. mais nag am na yoo xam ne moom ay détails la dama ne woon du ma ci wax mais. pour mu leer waaw comme yéen moom bi ngeen def seen liggéey moom c'est normal ñun ñu leeral mais amul leen lu kii ndax booy leen prip arbitre day xool arbitre bu fekkoon ne wey yu gaaña la dañ naa la mm-hmm. am nañ fula dañ lay woo la naka see wee te mm-hmm. te yow ba nekk daal yaa ngi ngëpp ay dara mm-hmm. sant yàlla daal comme noonu la ko yàlla tuddee di ko masawaat bu baax a baax a baax baax di ko jaajëfal ci xam ci maysans bi moom maysans mën na sax waaye def nga xaw ko de damay ñëw ndax fu lépp lañuy ñuy topp mu daal di leer naññ Alioune Seye sa loxo bi la moo ci ndax Alioune Seye koo dóor bu daanuwul bëri toj na loxo bi lu ci nekk. <laughs> loxo bi jàmmal salaam doo nga ci nekk wax dëgg yàlla loxo baa ngi nii. daam loo loo ci raxas wala pour koo dóor mu xalangu wala. <laughs> raxasuma ci dara déggoo li ma la wax. kon xanaa kon yow xeexu mbedd yi sax di ngay gis dit dóor dit bu toj xanaa kon kooku daa am lu mu raxasu. Mm. te loolu kenn préparé wu xam yi di bàyyi yenn esprit yi dugg seen kii. fu ne nii mm. fu ne fu ne laay jëlee ay ay appel sa loxo yi lii loo ci kii tooke lii <laughs> ji daal ay accident la fu ne lay ñëw. nit day xeex léegi nit ci mbedd mi léegi dóor ko mu toj. nit di xeex ci mbedd mi léegi préparé ko demul ci sëriñ demul fee du dóor nit mu daanu wala mu dóor mu ko toj. kon loolu su ñëwee ci làmb ñu ne sport dóor loolu kay su ñëwee ci làmb kay jaadu na. mais buñ ko ñëw aviser yi xam nga naan ay lii yeeg ay laa. te loolu sax bu amee ci làmb la bokk. bu fekkee ne ay tookeeg ay ay ay kii yooyu noonu. ci làmb la bokk mais ak loolu am na loo xam ne bu xewee moom dañ ko naayisal rek rafetal ko. xam ne noonu la waroon demee mu demee noonu. nga jëlee ci ndam te ndam bu ne ndam la di la ñaanal mu jig la jig la saa doon moo nekk sa kanam waaw la nekk sama kanam rek comme ni ko tax ma di waxee làmb moo nekk sama kanam làmb laay def mais xanaa am na ku nekk sa xel nag kenn newu sama xel làmb moo ne sama xel ci kaw laa bëgg a dem merci kàtt yàlla ca kaw nga ca kaw nag am na ñu fa ne neel kii la wala kii wala kii làmbal fenn sa supporter xawaat am lu leen defal tuuti moo ah, yaa ngi di xaar waaw maa leen di xaar promoteur ñoo yor seen xaalis. Mm-hmm. mbër yaa ngi fi. yow nga yor say dóor. non bàyyi ay dóor sax man moom <laughs> dóor mm-hmm. lu mënta ñàkk la rek waaw yaay. <laughs> ay sa ñëwal loolu lu mënta ñàkk la rek mooy li may wax rek. ñun bu ñuy ñëw làmb la ji indi. Mm. su dóor jegee ñu dóor bu bëree jorgee ñu bëree. Mm. loolu la yàlla namm. Mm. dañ ci sant yàlla rek nekkul loo xamante ne dañ ci avisé wu ay pour xeex ak affaire noonu mm-hmm. waaw. Alioune Seye nag du ma wax ak moom te ñi jëm ci dimanche lamb bu mag di am hmm? diggante ki nga xamante ni mooy Siteu ak Papa Sow ndax nga gis affiche boobu. waaw affiche boobu affiche bu neex la wax dëgg yàlla. Mm-hmm. di leen ñaanal jàmm sutura tawféex benn mbër bañ a gaañu. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu am wér. Mm-hmm. ndax combat bi yàgg na. metti na ci ñoom ñaar ñëpp metti na ci promoteur bi tamit. metti na seen fans yi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi xaar combat bi. du ma def loolu ñaanal leen yàlla sunu borom mi nga xam ne moo am wér ak kàttan may leen ñëpp. ñoom mbër yi fa war a bëri yëpp may leen kàttan ak wér. ba jour ba que le meilleur gagne. di ñaanal supporters yi fekkee ko ci jàmm dem ci jàmm. kii daanu daanu kii daanu daanu. ñu ñibbiwaat ci jàmm waat ko ci jàmm. waaw Amine du ma wax ak nag temps bi ñu mel daf ñoo xaw a xoj mais foog mu dugal mu nekk mbër di bëre ñu ne fu ne nii mbër yi suñuy bëri supporters ku sa supporter yàq yow mbër mi ngi say sa en tant que mbër yi naka gisee décision boobu seen jël waaw loolu moom du ma ko mos a rafetlu mbër boo dékki micro tamit du ko mos a rafetlu pour sa mbër daan wala mu daanu ngay yàq moom loolu moom kenn rafetloo ko mais tamit gars bi bu ñu jël décision wala ñu jël ay ay ay sanction nañu xoolaat bu baax li ñuy def dëgg la bu sa yàq yi day mel ni yow yàq mais am na si loo xamante ni supporter dina jóge foo xamante sax mbër bi xamu ko mm-hmm. yàq-yàqam ndax xam nga léegi loolu si deretu sénégalais yi la bokk la la la nekk sax waxatuma laa ci làmb ji kese de mm-hmm. mais yàqal moom léegi sénégalais dañ koo jël mm-hmm. te wax dëgg yàlla il faut tamit ñu xam nga ñu xoolaat suñu bopp bu baax te xam ne li ñuy yàq mm-hmm. ñun ñoo ko moom xam nga ku yàq sa bopp nag après yow xam nga yaa fa yaa yaa fa naaje gars yi dañ delluwaat seen xel te xam ne ñiy bëre ay doomu ndey lañ suñu pare gisoo ñoo bokk ay association des lutteurs bu lutteurs yi wootee ñëpp ay ñëw nga mel ni làmb musul am day mel ni kenn musul dóoranteeg sa morom tey bu làmb amee bu kenn daanee dañ muñ suba da ngay bëre daan wala yàgg ngaa bëri di daan ay doomu jàmbur mais lan mooy ndayu ngay bëre sa support am na si yoo xam ne sax seen seen mbër day daan ñuy yàq xam nga loolu ci réewante la bokk mm-hmm. wax dëgg yàlla loolu moom kenn rafetlu ko mais décision boobu moom ko xoolaat bu baax ku sa supporter yàq mbër bi kii ñu yàq waa mbër bi fay mais tamit loolu day waat de loolu moom war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax waaw di leen ko waxaat ñu xoolaat rek ñu xoolaat bu baax la ñuy def ndax mbër bi yenn saa yi supporter dina ñëw tax te fekk xam ko ndax stade bu ñëwee ku nekk sa jikko ñii day ñëw bu ñëwee supporter seen mbër daanoo daanu ñu encouragé ko wala ñu kontaan dem ñibbi mais am na si ñoo xam ne bu ñu kontaanee bu ñu kontaanee yëpp dañoo yàq ndax loolu moom seen deret la nekk mais tey nit mënoo ko mu ko tey tey ngay def li tey tey tey mbër bi mënul topp mbër supporter bu nee naa ko defal lii defal la waaw waaw même supporter yi président supporter rek ñi may àndal yëpp mënuñoo mënuñoo gérer supporter yëpp kon dañu xoolaat li ñuy def bu baax a baax a baax waaw waaw li may tàggatoo sant yàlla rek bi nga xamante ne commencé nañ ci ci bisimilah rahmaani rahim te yaakaar naa ne waxuñu fi loo xamante ni Sénégal dañ ñu xeeb dañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax waaw ndax moom dinaa wax mu yegg sunu borom la neex waaye wax mu jub tamit suñu borom la nam moo koy moo koy nam ci sa jëmm mu am loolu dañ koy sant yàlla bu baax baax a baax a baax waaw rafet kaay <laughs> yaa ngi dégg di yi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoo yàgg ñoo yàgg jàpp ci si sama combat muy sama Euh, Lamine Biteye Kassi xam nga Cheikh Bouwala France Gora Dieng France xam nga Ahmed France Itali euh, Italie bàyyi kii euh, Pape dem ba Espagne bàyyi góor Alamda xam nga ñëw fii nii Laye Diouf Jibi Séeréer xam nga di di sant. Ah, waaw li ñu wax. li wax nee dañoo bëgg fii kuy daagu ci biir kër gi léegi. arrêté waay. ah ok may naa lool <laughs> tàggatoo lu yàq sama appétit waaye maa ngi doon lim teg teg woon ci yoon bu baax ma yàq sama appétit loolu la <laughs> xaar lu tax loolu daam daam daam julli yoo xam ne dañ koy biral am yoo xam ne dañ koy yeelu loolu la ko waroon tudd ci biir rek nga ñëw fii di ma naan ma kii bàyyi si ngay def waaye <laughs> <laughs> waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw sant say deux famille di leen wax ne xam nga dañ waaj sargal bi suba samedi incha allah sargal bi fii la say deux famille yi ñooy sargal seen mbër di sant waa écurie Waalo bu baax di ñaanal ña fa am combat borom may leen ndam ña amul combat suñu borom may leen combat ñu bëre daan ci kàttanu yàlla géejuwaay yëpp am combat yàlla na borom may ndam sama turandoo bokk na ci moom ci biir ñu am combat la moom Macha ak Ma Ndiaye ñoom ñoo am combat euh, ci écurie Waalo sama turandoo moom maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom may ko ndam lu seddu guy te gaaw ci barki Seydina di ñaanal waa géejuwaay yëpp di ñaanal waa àdduna waa unité 4 maa leen di sant di leen gërëm di jël nuyoo bi di ko teg ci Mame Massamba Fall Ngathie bàcc Alioune Seye même jàpp li ma bañoon wax dinaa ko wax Alioune Seye waaw nga am combat ak ki ne mooy Zos nga dugg ba biir koñu Zos biir xolu këru Zos nga ne fa da faa dajj ay supporter indi lu tax loolu doo di question la dajj bu fekkoon ne combat bi rek lañ ma faral mais su sama kër papa moo nekk foofu noonu d'accord tey su ma demoon su ma deexoon tey falaay laay faraadi voilà kon su ma fa amee ay supporter samay sama kër papa moo fa nekk samay xarit nekk fa bu ñu amee xew jàmm ma ñëw bu ñu amee xew leneen ma ñëw kon seen normal su ma amee xam su amee xew tamit ñu teewal ma loolu tax ma leen di jaajëfal rek mais waxuma ko wallahi la waxuma ko pour xam ma pour dara ndax ñoom combat dafa diisoon ci ñoom combat dafa metti woon ci ñoom xam nga tamit nga dëkk ci benn koñ ñii far fii ñii far fii tey yàlla bu defoon safaan tey ñoom dañuy am problème xam nga moo tax ma leen di jaajëfal rek ndaxte kuy sonn ci yow tamit da ngay jéem sonn ci moom maa ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen tawféex bu baax a baax a baax a baax waa Abdou Sarr Seka Ibu xam nga Bamba Baye Fall xam nga ak sama mbër bi du ma tudd turam <laughs> waaw kot la wala baax ba tudd turam rek itilaire moom sama fiis la boobu moom xam nga su amee combat dama ciy sodd c'est normal Etio xam nga boo yëpp rek ñi fa nekk lim dafa metti Cheikh Sarr sama frère xam nga. ñoom ñëpp ku lim da ngay juum mais nuyoo bi daal maa ngi koy jël di ko teg ci bàcc waa axlu kafe gi yëpp képp ku may fréquenté rek maa lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax di jaar sama waa kër wax dëgg yàlla soot nañ ci man trop bu ma amee combat doo ci lekk dootu ñaan di bëgg ñëpp daal lim dafa metti maa ngi jaar ñëpp waaw. Aïcha mu ngi noonu ah, Alioune Seye numéro 2 dama koy jaajëfal bu baax am naa fi doom na xam naa su may def dama ko yóbbaale sama équipe bi.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 et cochez sur la rubrique Live. Vous accéderez ainsi à Le ticket passe pour une personne à 9,99 euros et le ticket passe pour à 19,98 euros. Une fois que vous aurez fait votre choix, différents à savoir le paiement avec votre téléphone mobile avec avec l'application Pay by Card et le paiement par PayPal. Une fois que vous aurez choisi le mode de paiement qui vous convient de plus, remplissez les informations demandées pour valider votre inscription. Par exemple, pour le paiement avec la carte bancaire, les informations demandées seront votre adresse e-mail, les informations relatives à la carte bancaire en tant que telle et le nom figurant sur la carte bancaire et le pays concerné. Validez le tout en cliquant sur l'onglet Payer. Payer et le tour est joué. Bonne suite de programmes sur Leoto TV. Tafatine, Boignan 2, un événement de Leoto Production. kon nag mbokk yi dimanche 19 décembre arène nationale système pay-per-view fukki combat benn takkusaan Tapha Tine takk ci rib Boy Niang numéro le capachoni